bi may ñëw it jot naa jot naa préfet euh, jot naa sous préfet wax naa leen ko kilifa itam yëg nañ ko ñi ma ko war a wax. waaye nag bii mooy ñeent yoon comme ni ñu ko waxee ñun moom Onoro Xudaam li ñu def mooy alert loo xam ne balaa population bee li ñuy wax prévention balaa population bee jëf ñu fexe autorités yi yëg ko. sëñ Modou Habib ànd naa ak moom mi ñëw naa fii sa village ñoom ñëpp def nañ li ñu war def mais tey biñ ma wooyee ni ma tool yaa ngi yàqu man dem naa ba gis tool ya ndox ma fii may wax ak yow ma nga def benn yoon di yàq di jàll. salaat salaat soo xam ne mi ngi xaw gudd ak yëpp di yàq fépp bii nag mooy quatre fois yoo xam ne def na ko ndox mi mu taw biig euh, dafa bari léegi nag bassin bii bi mu daanoo wax naa ko ministère wax naa ko ministère de l'intérieur bi mu ñëwee fii keroog nee naa ko bi muy taxaw fii nee naa ko monsieur le ministre damaa bëggoon nga ñëw wàcc ma woon la fi ma fi bassin bi manifesté wu. bi muy demit wax naa ko ko ni ko won nañ la loo xam nekkul xaj na am nga ay renseignements mais am na lu des boo demee da ngaa war bala ngaa dem nga ñëw xool li ci guddi gi la toj comme ni ko maire waxee noonu la deme bi mu tojee tam yëg nañu toj na léegi nag fi mu toje woon la ñuy pompe ndox mi ndox mi di ñëwaat ci biir bassin bi di jaar noonu di dem di yàq tool yi. mu métti ñëpp ñu wax tënk li ñuy wax li ñu tënk bi ñëwee fi góor noor dafa waxoon ne rapidement moom dañu daal defar lii dañu premier premier affaire daal mooy dañu daal di baare ndox mi moom ba ndox mi duutu ñëw bañ fa jógee andi nañ fi ñëw ñëw constaté nañ lu ne def nañ ko fi waaye ba fii ñu toll nii lenn lenn gisatuñ ci dara déggutuñ ci dara dara dara dara dara ji muñu ko ci ba ba bis ni ko tey démb bii ñu dellu toogati ndox mi del na jàllati te fekk nag tool yi lañ fi yàqoon ay millions lañ fi yàqoon ñu tàmbali lëbëri waat tool ba maase ba ñu jëmbataat ba tàmbali ba defe na ñoo ne ñu dellu ubbiwaat ñu dellu ubbiwaat te du kenn du lenn nag lu may yëf yaa ngi ca bañ ca nga xaan ka mooy téew bee ñu ubbi ci kër ñang di ko indi mu ñëw ci bassin bi bu ñu ko arrêté woon ndox mi du ñëw ndox mi ba canal bi tojee wala ñoom sax ñoo ci liñ ci a wax ñun daanaka mën naa ndax am na loo xamante gis nga ko fii lii lépp ndox la woon daa feesoon dell te lépp suñ tool yi ci la ci jaar ndokk suñ tool yi amoon foofu yëpp yaakaar gi amoon ci màggal bi sa màggal gi yëpp lépp suñu yaakaar googu dafa tas ñu yàqal ñu ay millions te boobaak léegi ñoo ngi koy ñaxtu lii nag du tay rek du tay rek yàgg na ndax boo xoolee fii ci penku bi loolu lépp ndox la woon te ay tool yi gerte ay ay ay ay boromi kër yor seen i njaboot ñoo ko doon bay te du benn yoon du ñaari yoon yoo xamante ni da leen di yàqal dafa jot ñu wax ndax ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci tool suñu Cheikh Darou Rahmane yi di liggéey am defoon suñu yaakaar lépp mu yàq suñu tool lépp ñu di ko layam layamee di ko di ko di ko ñuxtu boobaag léegi waxuñu ci dara liñ bëgg nag moo ñu saafaraal ñu lee constat bi constat nañ ba noppi waaye li ñuy ëppoon solo mooy lee ñu nga xamante ni yàqal nañu ko ñu saafaraal ñu ko mooy ndox mi dem ci tool yi te boobaag léegi waxuñu ci dara. Kosa ba mu demee lii ci dara Kosa nañ ko nag la ñuy la ñuy gënal te lañ bëgg mooy nañ ñu jàppale defaral ñu lee suñ ko mënul nag ñu tey ñoo ngi taxaw ci télé bi bu subaa 7 heures dañuy taxawaat ci kaw télé bi te bu boobaa lay gën a métti. te waruñu ñu créer ay problème de famille à Touba te ci ci foofu lañ jëm moo tax kilifa yi yenn ñi suñu nijaay yeeg yenn kilifa ñi toog mais teg waxuñu parce que duñu gaaw a jóg mais am na loo xamante ni man en tant que député du peuple dëkk fii. dama lay en tant que vous responsable commandant que nga alerter l' autorité expliquer leen pour ñu dal. baaxul ci nit ñi. baaxul ci nit ñi léegi nag li am solo am solo mooy li am solo li am solo mooy li am solo taala moo mooy mooy daaneel li am solo mooy population bi am na ay xale yu génn def acte bi te mën na dépasser fii te te du ko jar te solution mën naa am bi mooy nañu jël. ay matuwaay fat fee toj. lan mooy solution bi mooy fexeel kut kaa kut ndax ndox mi ni muy demee buñ jëlu seen pokolin yi sakk fi ndox mi jaar mën na indi yeneen jéeya wala yeneen musiba bi ñu ñëwee itam fekk nañ fi xale yoo xam ni wax dëgg yàlla mer moo leen jàpp ñenn ñi sax xaaj bi dem nañ am na ñoo xam dañoo mer ni dañuy taal bu fekkonte ne du luñ leen femm man ak chef du village liñ leen femm ak ki nga xam ne mooy jëwriñ donga yi liñ leen femm nit nag bu ñu la dénkee population dénk la mbooloo da fexe ba bañ a topp ci watitu maanaam li naan jaan dem ba pare nga topp ciy dóor fi ñu nag lii lu ñu war a taxaw la kon nag nii ma ko waxee woon waxoon naa ko fii ni leen sëñ Bass Abdou Khadre ñi ngi ko a wax naa ko ko ñoom it yaakaar naa li ci war a taxaw danañ taxaw waaye daal tool yi yàq gi métti na fii kon nag ñi ngi xaar autorité yi di leen wax ni leen déngale koom ay xale lañ yoo xam ni demuñu dugguñu ci gaal yi ay xale lañ yoo xam ni seen i njaboot fi nekk am na xale la yoo xam ne sàccuñu fenuñu ay dongay muritu ak ñu yor seen njaboot ñoo fi nekk. waaw ñoo ndox may jógee ci Touba ñu di ko yóbbu ca bassin booba bassin booba la ñuy jër nag di ko ubbi mu ñëw moom duñ ko mën a supporté duñ fa tool ba ne ña fa dëkk autorité yooyu moom ñëw nañ fa waaye fi fi yàq ñi yàq ñi yàqal autorité yooyu gisuñu ci kenn waaw gisuñu fi kenn ku ñëw mas